Euh, seen ancien ministre des sports Yankhoba Diattara ñu xëy presse bi nañu euh, cour des comptes fuyee na gestion am gis nañ ci ay kafaar yu bëree bëri naka ngeen accueillir loolu. mais loolu du dëgg. ah bon man damay leeral lu leer loolu cour des comptes deful benn contrôle bu attesté loolu. Hmm? cour des comptes bind na leer xam nga at bu nekk cour des comptes day def programme ne sama programme fii laay dem fii laay dem fii laay dem jox ko gouvernement man mi si sama ministère am na lu ñu fa war a vérifier. jox na jot naa lettre bi ci ministère des sports am na lu ñu fa war a vérifier comme yeneen ministère donc ku nga xam ne commencé wul. kon liñ bind yëpp dara amagu ci. amul benn rapport bu am c'est-à-dire lu nga xam ne commencé wul naka lañ ci mën a atte du dëgg man dama jàpp ni am na ñu nga xam ne am na ñu nga xam ni ñu ngi ne ci ginnaaw bëgg a bëgg a taq taqal bëgg a taqal euh, Yankhoba Diattara di ko de xaw ma nag li mu def ak lu mu deful mhm. mais li fekkee dañ ko sukkandiku ci rapport de Cour des bis waxagul sax asalaamaaleykum. loolu leer na. bu ne asalaamaaleykum ba pare day vérifier te loolu day jël temps bu vérifier ba pare. oui parce que ñu bëri c' est un e, affaire day def njëkk lettre daf daf lay def rapport provisoire yow mii nga xam ne vérifier na la ne la bi ma ñëwee lii laa ci gis loo ci xalaat kooku bu indee ay firnde que lii ak lii amul ñu ñu tenir ci en compte génne rapport définitif. Mm-hmm. kon loolu àggaguñ foofu. kon nag est-ce que loolu am na man nag waxuma ni li ñu wax am na ou bien rapport daal gëstu amul daal li ma mën a wala mooy rapport Cour des comptes amul te nit ki booy accusé nit da nga ko teg ci fa nga xam ne euh, euh, yoon la. dama bëgg daal euh, ñu bañ a tooñ doomu jàmm